ñoo ñëwoon tey euh, à la permanence départementale euh, de l'APR qui est le siège de Benno Bokk Yakaar au niveau de Thiès remercier symboliquement un lot de 21 fiches de parrainage muy suñu contribution pour la réélection de notre candidat Amadou Ba parce qu'on est sûr qu'il va passer dès le premier tour donc c'est une contribution du mouvement Rafetal monsieur Assane Sow donc ñu ngi baax baax si liggéey bu mag bi nga def ñëpp xam nañ ni en tant qualité de coordinateur régional de l'URD en même temps le président du mouvement Rafetal euh, ñëpp xam nañu sa liggéey ci fii si Thiès rawatina si Thiès Nord vous avez toujours gagné votre centre et je pense ce sera encore euh, la même chose que vous allez faire. Et nous comptons évidemment sur votre collaboration, votre appui pour qu'ensemble, la coalition Benno Bokk Yaakaar mën a faraat le candidat bi nga xamante ne mooy candidat bu mu bu Benno Bokk Yaakaar muy le candidat Amadou Ba. donc kontaan nañu vraiment si fiche yi nga jox ak contribution bi nga def donc ñu ngi jox maintenant kàddu gi ki nga xamante ni c'est le permanencier moom mi nga xamante ni mooy. Euh, en tout cas gérer lépp lu jëm parrainage au niveau du département de Thiès muy doyen Niass. Euh, Assane euh, au nom du délégué régional Pape Mambouna Massal et au nom du responsable départemental Augustin Tine je vous félicite pour ce travail comme il est important pour le Benno mais surtout pour Amadou Ba félicitations.